Herbert de Kang ba tey ah, message ah ah. barki borom daaru mais ñëw ñëw ñëpp ndaw ñëpp Sonko moo leen tax a jóg mais nag ñun xamul ko xel bu dal daal ndax gisuñ ko. xamul ndax gën naam dee nag. waaye ñun gisaguñ xel dalagul daal ndax gisuñ ko. waaw da nga ko gis ah kon nag xel daal la kon. ko gis di nga ko gis léegi. waaw kan mooy dugg si nii kan mooy dugg si nii. am na kilifa guy dugg si noonu kan la am na kilifa am na kilifa guy ñëw am na kilifa guy dugg si noonu koo kan la daa mel ne soxna la de ah, am na kilifa guy dugg si. am na kilifa guy. suba nga dikk ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw may ma daal. dimbali ma rek. dimbali. may ko nuy naan. maa ngi lay fay. loo yëg. damay wax alhamdulilah rabbil alamin bés bii Sénégal yëpp ko doon xaar rawatina ñun patriotes yi nga xam ne suñu leader lañu tooñoon tooñ ba fi tooñ yam jàpp aussi suñu candidat tëj ko ci kaso bi suñuy frère ak suñuy sœur si li dul dëgg di yoon kon tey képp kuy sénégalais war nga wax alhamdulilahi rabbil alamin te xam ne yàlla rek ay dëgg yàlla rek a mën li ma gën a neex ci bés bii mooy président Ousmane Sonko dafa bëgg alxuraan Macky Sall defal ko lu rëy projet bi mu porté ci weeru koor incha allahu rabbi lañ koy installé kon euh, mbirum Ousmane Sonko ay jàngat la histoire bi danañ ko bind suñu ay sët ak ay suñu sëtaat dinañ ko jàng on avait besoin d'écrire notre histoire et on l'a écrit avec notre leader le président Ousmane Sonko li may yëg ci sama xol mooy mbégte mooy sant moo ngi sant yàlla bu baax ci bés bi te jàpp naa ni tey bés bu bees indépendance bu bees Sénégal dafa moomaat boppam ñuy gërëm nag bépp sénégalais képp kuy sénégalais koo xam ni jàppale nañu ci li nga xam ne mooy xeex bi nga xam ne dañ ko doon mëne contre l'injustice. diggante président Ousmane Sonko ak diaspora bi kenn ku ne di xëcc ni maa gën a bëgg Sénégal ne maa gën a bëgg diaspora bi ne maa gën a bëgg. le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko wu Sénégal Ousmane Sonko Afrique Ousmane Sonko àddina yàlla moo ko feeñal ci suñu génération man ku ma xam ne dama bëgg Ousmane Sonko dama ko naw ci ay jikko naw ko ci ay qualité yu ñu gis si moom si njiit suñu génération soxla woon na njiit bu mel ni Ousmane Sonko yàlla indil ñu ko mu xeex li mu xeex population bi ànd ci ak moom ñu war a bind nag page yu yees ci Afrique ak Sénégal ñu ngi ñaan yàlla suñu lider le président Diomaye falu le 24 ndax ñu ubbi page bu bees ci Sénégal te gëm nañ ni yàlla dinañu ko defar ci barke weeru koor bi. ngay wax patriote particulièrement jeunesse bi ñu xam ne tam liy jàppale président Ousmane Sonko vote la ñu jëlee seen carte électeur yi préparé. loolu defe naa patriote yëpp def nañ ko farata waaye nag lu fas daw daw danga koy làbbali maa ngi invité tous les patriotes képp koo xam ne sénégalais nga nga am cofeel ci Ousmane Sonko nga am cofeel si si président Diomaye nga jëli sa carte électeur le 24 ñu bind carte avec suñuy carte électeur ñu bind page bu yees si histoire du Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ñuy wax metti woon na torop waaye en tant que jigéen xam naa ni li gën a neex ci àddina mooy doom te doom sax soo koy am da ngay matu balaa nga koo am kon fii Sénégal jaar man dama jàpp ni fii la Sénégal waroon jaar pour baax te gëm naa ni incha allahu rabbi fii la Sénégal di jóge baax ba ilaa yow mi diini te sénégalais yi ñooy nara bind seen histoire te ñoom ñooy nar a changer seen dëkk ilaa yow mi diini su l' impulsion du président Diomaye et du président Ousmane Sonko jërëjëf. merci beaucoup kontaan nañ ci yow bi nga ko noonu muy kàddu yi am solo yoo dégg nga ko li may wax li may wax Dakar Buzz rek am ah, li may wax Dakar Buzz rek li may yaa ngi may yokkal de. waaw nuyu naa mbaam nga jàmm. waaw alhamdulilah. c'est Difa Sonko. waay actuellement loo yëg. xanaa mbég dama kontaan ba mënuma wax ndaxte fi ma nekk ni sax lekk saa jaaruma ci. tellement sama biir bi dafa fees. ndaxte ñun amuñu lu gën Seydina Ousmane. Ousmane daa liggéeyal Sénégal. toogagul de mais liggéeyal na Sénégal def na fi li nga xam ne. bu ko bëggoon dindi sax du ko mën a nekk. Ah. connaissance bi am na xam nga xam-xam xam bi mu bi mu def si suñu bopp bi ba léegi mu fii des. Ah. Ousmane Sonko moo ñu xamal luy Sénégal ñun dañoo dëkk si Sénégal mais xamuñu luy Sénégal Ousmane Sonko daf ñoo yëg bëgg doomu aadama ñun tamit mu jara ñu lu ne ñun tamit ñu jaral ko lu ne ndaxte doomu aadama bu demee bañ koy xeex si kaw réewam si li nga xam ne moom moom moom dëgg ñu salfaane ay akam. ñun tamit amul lu ñuy def mooy teeru ko jàppale ko ba keroog fu mu bëgg a àgg mu àgg fa. et président Ousmane Sonko li mu njëkk réussir mooy fexe ba patriote yi bëggante sones waaw parce que nee naa la sànq rek si sama wax defar na li nga xam ne bu ko bëggoon sax nangu du ko nangu ndaxte mën naa la wax patriote yi ñu ci ëpp sax ñu ngi séenti seen biir ñu ngi koy tuddee ay doom comprendre nga euh, am na ñi nga xam ne dañuy toog di jooy guddeef bëccëg ngir Ousmane Sonko am na ñi nga xam ne du ñu nelaw guddi dañuy fanaanoo du julli. ngir moom kon na Ousmane Sonko dafa setal Sénégal kon nag ñu ngi ñaanal yàlla jàmm te Bassirou Diomaye fay ñu ngi ñaanal moom tamit mu jël réew mi ak jàmm. lan la mën a xaar le 24. le 24 ñun moom ndam rek te wóolu nañ suñu bopp wóolu nañ ci suñu bopp bu baax. xedd euh, voté ndogu zibile loolu moom même buñ ko waxulee sax ñëpp xam nañ ko ndaxte lii nii Sonko rek moo ko mën a am imagine imagine caravane tey 11h laa génn sama kër ma ñëwaat jubluwaat fii nii encore 2h du matin te maa ngi fi taxaw te xaadiwu ma de xaadiwu ma de man mii maay difaa Sonko nag voilà xaadiwu ma benn yoon ñu bëri nag xam nañ ma. voilà moo tax ma dégg ba tey li may wax rek ci direct bi maa ngi leen koy toppal li nga xam moom mooy am waaw grand nuyu fay la. ma la Fallou Gallas Ndoye. voilà nekk Haalpulaar taxul ñu en ànd ak Macky Sall parce que je suis fier d'être Pël sama yaay ba maamaati maam yëpp ay Haalpulaar lañu je m'appelle Sala Gissé voilà ma vrai nom Sala Gissé mais terewul Ousmane Sonko dama ko bëgg ci sama xol mësuma def campagne mësuma def élection mësuma voté sax mais su Ousmane Sonko 2019 laa commencé vote te jox naa ko bopp ah, ba keroog ñuy dee bu bàyyee politique ma bàyyi politique. ak ah, bisimilah. waaw waaw jaar rek. waaw naka bu baax lépp jàmm rek. waaw tur bi nan la. Fallou Galas. Fallou Galas foo maa ngi jógee ba Jandeer caravane lañ jógee nii sax. waaw dañ jógee caravane après ñu yëg ni ñu yëg ni Seydina Ousmane Sonko génn na. après ñu bere caravane bi rek dawal ñëw xam nga. sonn nga waaw sonn nañ trop boobu ba léegi ñu defuñu dara. xam nga bilaay dañ sonn quoi. parce que Sonko lu ñu jaral dafa bëri barki Serigne Bamba. lu ne jaral nañ ko lu nekk rek. mooy loolu noonu quoi Baye Fall bi loo bëgg a wax yow nag kaay. loo bëgg wax. waaw suba yàqur yàqur sër. foog Baye Fall bi balkare man ku ma xam-xam ne man maay Baye Fall Ousmane Sonko. sama TikTok boo duggee boo tapee Ilimane 134 da may gis liggéey bu sell bi ma koy liggéeyal. damaa jógee ci caravane ci àll bi fan yii yëpp maa ngi woon ci àll bi fi may wax ak yow ni soj bi ma ñëwee tey ci ngoon dama xawoon feebar ma tëdd waaye bi ma déggee verdict bi dafa mel ni dañ maa roof wér ma daal di wér daw. lan la dama dawee Padoa ba fii. lan lañ mën a xaar la 24. lan lañ mën a xaar. élection jarul muy am. élection soo nit ñi la ak yàq xaalis. Macky na gore ngir yàlla ak jëmee Seydina Mouhamed na ko woo. kii la nit ñi bëgg kii la réew mi bëgg